micro beeg. tàllal say loxo te taaxal sa ndab ndax jaan bi jigéen ak ju góor amul biir ci màkk nga wax nag ni sëtëy doon na maam kon na kenn ku ne tàllal loxoom. sant Sëriñ Tuuba ñuy sant ñi ñuy tuddee ñi ñu tuddalee suñu waajur bu baax wee bés bi ñu leen ciy sant di leen gërëm bu baax di ñaan yàlla suñu borom yàlla yokkal leen seen lépp yokkal leen seen pas-pas ba li ñu bëgg ci seen àdduna yàlla may leen ko ci daraje Seydina Muhammad barki borom Tuuba Mbàkke ba sule sule jëloor ngaj yi gaaw mënuñu koo fay ndax wax dëgg yàlla bis bii gaaw moo ko sos kon alhamdulilah rabbil alamin ngañ jàmbar la woon jàmbare lislaam la woon mboolem li fi wax yëpp yëpp yëpp ngañ def na ko ba def lu kawe loola sax kon ngañ yal ko yàlla jéggal dolli leer dolli ko ngërëmal yàlla ak yonent ak ngañ jàmbar woon euh, ndaw yi nag yan kàddu cant nga soññ nga jëmale ci njabootam njaboot njabootu boppam waaw xanaa góorgóorlu rek tey jéem a roy seen baay ndax buñ nee sa baay a baax surtout comme bisub tey jii sas nañ la war na la boo war na la xale yi tamit lan lañu ñu war a rootee ci mag ñi ba lii mu mën a wéy ne sëriñ bi wax rek ne bu ngeen nekkee benn maa ngi seen biir rikk bu ngeen àndaloo doon benn dem benn say maa ngi seen biir loolu nag ku ko ci defoon di dimbalante rek di dimbalante maanaam lu am kenn ku ci tële ku ci néew doole wala ordonnance ak yëpp sëñ bi dana santaane ñëpp dimbalante kon loolu yaakaar naa yee francois yu ne ndax comme ñun ñii ñee fi ku ci sonn ku la dimbali sëñ bi loolu la bëgg góorgóorlu nag ci toolu àllarba yi toolu àllarba yi ñun duñ ko foyee. dayri bi dayri bi moom ñu ngi leen di rendre hommage maanaam di leen. ñaax ñaax bi sa bëru ndax ñoo yoon wi ñu aw buñ ko bàyyiwul daañu la séeni ci kaw yàlla bu ñu am ndox fenn nag ndax yàlla dayri bi continuer rek te te la gone tàmbalee lu ne xam ne loolu day wéy lu mag mujjee loolu bu yàggee du dem fenn waaye li gone yi gone yi ndaw yii yii catégorie di de di rek war naa am yaakaar di sant Baye Ngagne di ko ñaanal yàlla yonent bi ak suñ mujj Aminata suñu yaakaar fekk fu ñu jëm Baye Ngañ da daan jógee tànkam ñëw ba fii ci man ne ma gàmm ma ne ko balay sax mu ne ma yow rek laa yëg ni yow dong mën a taxaw sama taxawaay lépp lu ma la wax def nga ko lépp lu ma la sant nga def ko man de li ma gën a bëgg mu ne am man ko bés bu ma fi nekkatul yow yow yow gàmm na nga nekk njëwriñ man ko bàyyi ngañ mu ne am man ko am na ñu la ñu ma jiitu ñu ngi fi mbët mooy sëñ Mamadou ñoom ñoom ñëpp ñu ngi fi ak ñoom sàmba Dione ñëpp a ngi fi mu ne ma man nag damaa gis Baye Fall gi ngi si doon keroog bi ñuy jëkk dem xel kom ci ngor ma dañuy dañuy dem guddi man leen ah ñu dem guddi ndes nan la ñuy def ñu ne dañuy dem guddi gi man leen kon nañ nañ leen fexe ñu togg reer mu ne amuñu lu ñuy togg reer mu yëkkati aw bëy teg leen jox leen ko ñu togg ko reer bàyyi ngeen damaa xool ba ak rek jooy ne ma lii taxoon ma waxoon la ni mën ngaa nekk jëwriñ sama kanam waaye maa ngi lay ñaanal waa Daaru Xudus gii tey jii. yàlla bu la kenn ëppale baat te bés boobu mu yàlla def na ko. ngi sant bu baax. bàyyi ngañ kenn mënu ko wax ba mu jeex. sëñ mu woo na ma ne ma nga la daan ñëw. ànd ak ma ànd ak moo ak ñu ñëw ñu la koy defar ay jàng bay njëg ngañ nga mooy daan jëkk def jàng fii. suñ ñëwee ñu woo ñu toog. gaa yi nga xam ne tuuba bu ñu ñu yëkkati as as cogg teg ne ne sëñ bi sëñ Cheikh siñ bi bu fekkee ni yu mel kat bëgg nga ko kat mi ngi nii mu ne ko lan la mu ne as cogg mu ne ko a tegal noonu xam nga bu doon bu doon ci nii tey dañu naan bisimilah jëm ñu mhm. tax ngoo sëñ bi nii mhm. mais siñ dafa nekkoon jeex ak teggin la daan yar si jàngale mhm. ngañ ceeb dafa nekkoon nit koo xam ne ku gëm la te giñ naa ci yàlla ngañ amuloon xaalis ngañ ngëm-ngëm la amoon ngañ bëgg la amoon bëgg sëñ Tuubaa bëgg Seex Ibra Faal bëgg sëñ Mudu saa su ne yaakaar fekk fa ñu jëm ba boo nee ngañ ceeb mu ne Mbàkke bala isa na nga def mu ne maa ngi sant sëriñ Tuubaa yàlla mi borom jàmm tey jàmmal te ku mu jàmmal nga am jàmm bàyyi ngañ kin mënu ko wax ba mu jeex dëgg neex yàlla maa leen dese waaye dese yu tuñu moom ndax lu jóg ñu ñëw fii ne man nan la ñuy def man ko nañ jaar nii niñ def nii ba diir bi taxaw dañuy bay noor di bay noor nawet mm-hmm. lépp la ñuy def mm-hmm. noor beeg nawet bépp dañuy liggéey mm-hmm. euh, li ji jëmale kanam ndaw yaa ngi ci wax dëgg si yàlla ñoom daal gisuguma ci lenn loo xam ne tarfate na jëm leneen ci lu ci daadi yi waxuma gisuma ko ci wax dëgg si yàlla yal na leen yàlla dolli jàmm yal na yàlla guddal seen fan yal na leen yàlla teg ci yoonu siraatal mustaqiim yi nga xam ne ñoo taxawu bis bis bépp yàlla na leen yàlla dolli jàmm jazaakallaahu ana xari wal jazaa yi jërë ngeen Hey, hey, hey, oh, Ahmad Mbacké ibnu Suleymaan bi Mbacké Haajara mi nga xam ne moo nekk njaareem moo ngi nii ci bi kon bu ko defee ñëpp mën a dugg si mu nekk di kàddu sant mën kon ñoo bi kon Sabda dina kàddu gi Mbacké ñu ngi lay jox sa coono a baax. kon ab murit dafa war wër te yaafus. bañ di ko ràmbu ëllëg ab war a ràmbu la ëllëg ci kaw boo jaaree ci yow mi nga xam ne moom la sëriñ bi bëgg la sëriñ bi bëgg loolu nag li ñu koy may mooy ñu góorgóorlu sax ci ak yëpp sax ci jaamu yàlla sax ci li nga xam ne maanaam moom la sëriñ bi bëgg moom la sëriñ bi bëgg ngeen gën a góorgóorlu bu baax ci lii nga xam ne moom ngeen taxawal te aar na ko ngir yàlla jëmmi sëriñ bi muy de am am solo doo xam ne bu bu ngeen amul woon pas-pas wala ngeen am yéene liggéey sëriñ bi du ngeen ko man ndax sëñ Tuubaa daa wax ne saytaane bu naree yàq day fekk liggéey bu lislaam taxawal nee na saytaane lu muy def nee na ku fekk ci ñay liggéey lislaam sa pas-pas dëgër nee na day fexe ba mu ba mu ku mu fekk sa pas-pas woyof nee na day fexe ba mu fecci ko nee na ku mu fekk fasa ko nee na mu fexe ba doo fas mu fexe ba doo fas daal ne nag loolu bu nit la pexem doomu aadama la nga xam ne mbooloo yi moo ci ki nga xam ne pas-pasam dafa dëgër foo dikki te kanam nga koy fekk waaye sëriñ bi nee na kooku seytaane day fexe ba pas-pasam woyof nee na ki nga xam ne pas-pasam dafa woyof nag nee day fexe ba mu fecci ko ki nga xam ne pas-pas amul pas-pas sëñ sëñ bi nee na seytaane day fexe ba du fas mooy ki nga xam ne léeg-léeg gis ko am positif ci ci cib daayira di continuer ci daayira bu ba mu yàgg gis pas-pasam di wàññiku gars yi duñ xam lu mu doon fekk seytaane ku soxla nga gis koo xam ne ba mu ciy dugg pas-pas bu dëgërul lool mu tax ba mu yàgg gisatoo da ngay xam ne kooku pas-pasam moo dëgërul ba mu seytaane génn na ki nga xam ne nag dafa toog këram di waaj saa boo gisee mu naan dinaa ñëw dinaa bokk dinaa ñëw kooku du mos a ñëw ndax moom itam seytaane yeew na ko xanaa kay ñi nga xam ne yàlla dogal na seen pas-pas dëgër ñooñu la leen a gën a mën continuer ba nga xam ne ñoo topp seen ginnaaw ñëw itam mën a yegg am na ku mos a ñëw sëñ mu am na bis muy waxtaan ak taalibe yi am ku daanu jéem jox ko aw fas addiya sëñ bi ma waxtaanee ba nag daal di wol leen ma ko ma jox ko fas wu gën fasam bii daal ne àdduna yi moo fi nekk li mat a def li matul a def ak li ëpp a def daal li mat a def mooy jaamu yàlla suñ borom subhanahu wa taala ndax moo ñuy may tey ak ëllëg moo ñuy jariñ tey ëllëg daal ne li mot li li li matul a def nee mooy fo nee mooy fo ndax moo ñuy xañ tey ëllëg daal ni lu la wàññiwul loolu ko jariñ moom li ëpp def nag mooy mooy yàlla ndax moo ñuy xañ tey ak ëllëg moo ñuy xañ kon nañ ko wat ni bu baax sëñ bi nee na li ma mooy jaamu yàlla suñu borom subhanahu wa taala li ma tuddoo def mooy foofu li ëpp a def mooy mooy yàlla suñu borom kon nañ ci góorgóorlu baax baax am na bis mu fatu ba mu yàgg mu génn fekk taalibe bi toog mu daan ne tikki leen ma jox leen tul goo xam ne ni ku ko takk doomu aadama du man ceew dara mag ñi nee nañ ñu defe ne sëriñ bi day bind jox leen wala mu digal leen sëriñ bi daal di jàpp ngay tomb ñetti tomb daal ne bul yéen bul def kenn lu bon bul wax kenn lu bon bul yéen kenn lu bon daal ne ku la wax lu bon lii wala mu yéene lu bon lii wala bu def lu bon lii ci kawam day këpp daal di gàddaale bi noonu boo xam ne tul boo xam ne ko takk dara kenn du la mën a dara kenn du la mën a dara moo tax nit ki bu nekkee ci àdduna yow bul sàkku ku la yéene wala mu def la wala mu iñaane la yow fexeel ba laabal sa xol ba xam ne bul yéene kenn ab safaan la koo gis yéene ko lu baax Sëñ Tuubaa nee na boo defee loolu ku la mën a yéene loolu ci kawam day këpp bu doomu aadama yëpp gisee woon noonu defe naa ne kenn du yéene nit mu di ko dal kenn du yéene nit mu di ko dal kon ñi ngi sant yàlla bu baax dañuy wàcce foofu suñu kàddu di sant suñu borom bu baax a baax di ñaan yàlla mboolem lu ngeen fi jàng ci ay xasida jàng ko fi ci alxuraan yal yàlla ful ko sotti ko ci dëkk bi ak mboolem tund bi di ko wër mboolem loo xam ne nii yittewoo ngeen ko bëgg ko yàlla na ko yàlla jege yàlla na leen ko yàlla jegeel ci barkeb Serigne Touba ak ci barkeb ñaan yi nga xam ne ñaan ko ñu ngi sant waa bu baax a baax nag di leen jégalu guddee gi ndax dañoo nekkoon ci lu mel ni ay dajëb yooyu loolu rek moo tax ñu guddee waaye ñu suñ coobare ñu ngi sant bu baax a baax tey baalu ñëpp wax di baalu ñëpp wax di wax ne ñu ngi am mbégte bu baax a baax a baax ñu ngi ànd ak itam ñi daan àndal rek mooy. suñu rakk la sëñ Cheikh Mbacke sama rakk la ànd ak sëñ Bàcci Gueye ak sëñ Mali Faye Touré ak Zina Dieng ak di wax na ñu ngi sant sëñ Moxtaar bu baax ak waa daayira bi bi bis bi jub see dañu ko dala wax dañu dala soññu ba fekk démb mu ñëw fa woowaat ñu téléphone soññu ñu kon suñu ñëw fii moom taxaw na ci lool kon ñu ngi koy ñaanal moom itam suñu borom gën koo dëgëral ku ku jotal la ku am yitte la wax dëgg yàlla ku fonk bis bii la tam ku fonk bis bii ñu ngi koy ñaan baax suñu borom defal ko taw tax mu mboolem ñu ànd liggéey bi ci barke seen tubaab di nuyu bu baax sëñ Bass Mbaye bi nga xam ne ñoom ko fi ak sëñ bi jaxate a xam dina baal a آمين يا ربي بحق وجهك يا واحدا ليس يرى مشبك يا من لوجهك الكريم ذا النظام كتبت قد لي الأيادي الإذام بلا أذى ولا جوى ولا غرر ولا عدا ولا بلا ولا ضرر يا من لوجهك الكريم ذا الكتاب كتبت أبلي إثمة من الإتاب لما زالت ولينا نزل

هل نداء وجاء بأهل ومنتقم وهو المقيس الذي أرجو إقاسته ولست لي نصبي mooy weeru jigéen muy dañoo wax weer at fan yi passé ñu ni 8 mu mel ni Sénégal dañuy màggal loo xam ne di ko feete tax xamuñu lan mooy asl bi maanaam lan mooy cosaan bi ndax 8 mars bu ñu xoolee li ko sabab ay jigéen lañ woon yoo xamante ni tolloon nañ ci 129 mu ngi nekkoon ci atum 1908 ci Amérique fa la sosoo ndax jigéen ñooñu dañoo nekkoon ci benn masma maanaam benn société boo xamante ni ci lañ doon liggéey waaye soxna yooyu seen heure liggéey dafa ëppoon foofu liñ doon fayeew ñoom nag ñu dem ci ki nga xam ni mooy seen mudir maanaam mooy seen directeur di réclamer seen ay droit ak seen xàq seen i ñooñu ñu bañal leen ko jigéen ñooñu ñëpp ñu boole leen taal leen ci benn neef ñu dee ndax benn jarima boo xamante ni dafa amoon kon yaakaar naa ni 8 mars boobu soxna yi di feetu buñ ko daan feetu ci tiis ak naqar ak yërëmtalu lañ ko war a feetoo waaye waruñu ko feetoo ci bànneex ak mbégte bu ñu xoolee tamit ci weeru mars boobu ci la jigéen ñi nga xam ni mooy jigéenu talaatay ndeer amoon nga xam ni buñ nee jigéen maa xam lay islam muy almaratu maa xam lay islam jigéen laataa lislaam bi ñëw dafa am fu mu nekkoon am fu ko lislaam jëme waaye am na tamit tey jigéen fu mu teg boppam mu am benn marsiya bu ndaw rek boo xam ne defoon nañ ko ci jigéen solo si mu am ak naka la góor war a fonkee ak liggéeyub jigéen moo tax ma ni fonkal jigéen war na ku ne teral jigéen war na fu ne yaatal jigéen ca la mu ne loolaay waral nga am lu ne jigéen li tax ma taamu la mënoo jafe ba ma bala foo mën a jëm ma topp la jigéen jar na defal lu ne ñoo lay toggal di la fóotal jural la doom di la yaral te boo jaaxlee ñoo lay defal loolooy li tax ñu jar lu ne jigéen dangaa bari njëriñ fariñ nga wuute ngaa këriñ yéen seenum xel dafa xarañ ñoo di seeni lu ne fu ne bu ñu toggee seen xol di feex bu ñu waxee reetaanee neex jigéen léppam dañu bànneex ku ko xamul dangay gone boo ci yoree xale bu ndaw dee ko muñal ca dafa gaaw jural tayar teg ko ca kaw bu xel màggee nga gis lu ne loo leen dugal mu saf xorom lu ñu bokkulit xaw ma mu jëm xam ngeen ne jigéen amul moroom ñun suñuy feem mën na lu ne jigéen li ñu yàlla dëxëñ doo te gis lu dul la feeñ ump na mboolem ku ko bañ man day damaa jaral lu ne bu ñu soloo ginnaaw tisbaar boo feebaroon faaw nga wér solu ba yiw doxinu naar xam ngeen lii jar na lu ne jigéen man day jigéen li ma ci neex li ma gis ci jigéen mat na xibaar nam doon dundee it doy na waar melaw jigéen romb na taar am na ci ñuy nuroog jinne man tey jigéen li ma ci neex su ma koy lim fii du fi jeex moo gën a lépp luy bànneex jigéen ju baax jar na lu ne ëmb juróomi ñeenti weer altine ñëw baaxuy dibéer nga muñu jooy nàmpali weer xam ngeen jigéen dañ na lu ne bu doom baaxee di yaay baay bu doom bonee ñu génne baay xam ngeen ni jigéen sonn na waay di leen neexal war na ku soo soq ak wal boo leen taxal dem rooti koo indi nu naa xam ngeen ni jigéen rek a ko man ku di daa yorul gone muy diine aada ak cosaan wëral Sénégal bépp diiwaan kun mën a soow ki say kéemaan xam ngeen ni jigéen a sonn daj lu ne saa yoo liggéeyee wàcc ba ñëw mu teral la teg la ca kaw jigéen di raay ba nga nelaw boo ca yewoo gént lu ne bu bës setee mu tànk ndox nga déet nga sangu dékki mu jox la lex nga foon nga daal génn fa saa yoo wàccee andi lu ne jigéen mënuma koo misaal lenn ci géej xel du ko laal day mel ni mool bu sànni mbaal saa yu teeree nga gis lu ne yow mii di takkal ba ñaar yóbbu sa kër amul baakaar ay fan yu néew nga dolli ñaar ndax kër gi neex bari ko ne ñu ciy jéggalu bu baax nag di wax wa waaw kon dañ koy jox soxna jaara rek danaa mu joxoon na ko kàddu soxna jaara moom ndax xale bu ndaw bu nii wax dëgg yàlla bés bu toll nii ñu sagalee ko lii dañu xale yëpp waay pëstéefam moo ko may lii waaye nag waru papam wax dëgg yàlla am na am na pëstéef bu baax a baax yal na ko yàlla yërëm fa mu nekk yokki leeram barki borom ci béréb bi euh, naam daaw xam naa mbokk yi ma fàttewoon ko borom mu neex mi di soxna Kine soxna Kine Saliou daal seen tàkku sama mbokk tali ñu ngi koy saare bu baax di ko jox wàccuwaayam euh, kon noonu bu ko defee rek dañ koy daal jox kàddu gi mu daal wéy liggéey bi mu jaar fa mu daan jaar rek wala nu ko raw kon bismillah mina sheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim wasalaatu wasalaamu ala hadil amin سيدنا ومولانا محمد المكين وعلى آله وصحبه ذوي الرضوان والتمكين ورضي الله عن شيخنا الخديم شيخ شيوخي خبر باني وإمام العارفين وتاج الكملاء فلا هو شيخنا الشيخ أحمد بامبا رضوان الله تعالى عليه وعلى قدوتنا العظيم maam Cheikh Ibrahima Fall Lamp Baabul Muridiin mbokku jullit yi mbokki taalibe yi ñu ngi leen di nuyu di leen ziyaara di leen ndokkeel di leen nuyoo nuyoo bopp digaloon nañu ko moom yàlla yónni ci ñun moom la yàlla ne lu waxee ci coobareem lu mu wax maa ko wax xam nga ne buur bu toll nii subhanahu wa comme nu jàkk ne la loo wax maa ko wax rek tànneef nga wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha borom boobu moo ne woon sallallahu alayhi wa sallama waxal jullit yi jébbalu bokk ci yow dugg ci lislaam fun dajee nanuy séddoo kàddu yi ndax njëriñ yi mën di sotti ko ci ñoom nuyoo boobu nag day doon sunna ci man mi ko def waaye di doon farata ci ñu ma koy delloo mu di asalaamaaleykum wa rahmatullah ci mbooloo bi boo koy delloo kenn rek teggil na ko ñëpp waaye kii bu ko ñëpp bàyyi ñëpp am bàkkaar moo tax ñu ngi di ndokkeel ci bis bii te ndokkeel ci weeru tëdd bu mag bu sell bu bari njariñ bi ñu nekk di weeru rajab nga xam ne dañ koo ber di ñaanal Cheikh Amadou Mountakha ñu fi toogal suñu maamu su borom yàggal ko te wéral ko te kàttanal ko te tawfiixal ko te may ko mu àggale ay yéene noonu lañ koy ñaanalee Serigne Cheikh Fall jëm ay di beral nag ay ñaan ci sunu jàmbaar ja sunu yaakaar yi tey ëllëg di Cheikh Abdoul Hakim ibnu Cheikh Mouhamadoul ñaan sunu borom mi nga xam ne mooy borom coobare ci ni ko neex mooy doxale di ko ñaan mu dolli ay ngërëm ak leer ci jëmm ju tedd jooju Cheikh Abdoul Hakim gannaaw loolu ngi am mbégte tey santaat suñu borom mi nu may nu teewaat bis fu tedd bi kon fàttalikoo daaw ba nuy ñaan ba nuy jeexal ñun ñëpp dañoo su suñuy loxo ñaan suñu borom may nu ko teewee déwén kon dafay mel ni ñaan gënu ñaanal yàlla yàlla nangu na ko dañu koy tàllalaat loxo yi ko ñaanal mu may ñu ñu fekk at yi di bëgg ñu ci barke Sëñ Tuubaa ndax moo ne mu ngeen ma ñaanee ma may leen wala in shakartum la azidannakum mu ngeen may ñaan rek ma di leen may da sax yonent bi isaa sa'alaka ibaadi anni fa inni xaribun ujibu daawata daa'i isaa daani ne yonent dafa mel ni jaam ñi dañ lay laaj ana yàlla ana sa borom foo ne mu ne buñ la laajatee rek nee leen ku leen jege laa dinaa wuyu képp ku ma woo waaye dinaa may képp ku ma ñaan. dañ koo chargé benn benn benn benn comité d'organisation wala moom volonté wul boppam waaye nii ba ma dajee ànd ak moom liggéey bi ba tey xam naa ne dëkk bi lu ko ñor la waaye bés bi tamit lu ko ñor la. loolu la sëñ mu fekkul ma am ca programme bés ma jotee bu ma leen déggee bu ma leen déggul. dafa wax ni boobu foofu bi la andi alxuraan sax ko wax dina la kaana masuula da leen sàmm kóllëre bi suñuy koor suñuy nangam la lay taxawale dina laaj say mbokk say mbokk ak say mbokk jullit kóllëre bi doxal sa diggante ñoom ndax sàmm sàmm la waaye ku taxaw li ngeen ko dénk la sama ñaan jëwuñ leen ndax damay wax ni ne boo juboo rek juboo la technicien yi man xam nga technicien yi maa ñoom lu technicien ba son yi nag moom ñoo gën a nekk sama xel baax a baax a baax dañ jox seen wàccuwaay ndax ñoom itamit ni bis ni daaw Seydina Ali ci la suñu borom dogaloon suñu programme ak ñoom ba yàlla far jaare kii moom dañuy ku dëkk sax kër baaba loolu yëpp yokkute la di dalal nuyu nag sama ndeyla ji sama bàjjen bàjjen laa koy wooye dem na ba kenn mënatu la jaar ci tur bi ndax kii na moom Serigne Saliou bi jàng ko xasaay ndox bi ñu yàllu ci lii ñuy def fu mu mën a dem àdduna bi moom la ñuy àndal am na bis ñu encore mu ne fanati ma ne ko taal leen mu ne ay la xanaa ne leen taal leen di fuy taal leen <laughs> loolu lépp di firndeel rek ànd boo ñu si tubaab boole ñu di ko ànd muy sama mag di sama jëriñ di ci liggéey bi lool waaye ci tënnu nag saa yoo ko fëggee mu jub waaye njabootam waaye léppam ànd ak man sa borom kër ni ma dénk naa ne ma ci ne bu ngeen demoon gisuma leen sax danaa xam ne si liggéey suñu tubaab ngeen nekk ba weer bu ngeen dellu si naa xam ne si liggéey suñu tubaab ngeen nekkoon kon loolu ak mbaaxam ak bëggam Sëñ Tuubaa foog xasida yi moo ko moo ko ko may doon nag ku ku ku miin lool jaali ba tudd maraaxil te man xam naa ne sunu diggante daal doy na waar ndax moo ca jàngi ñaari bay tàmbalee nelaw loolu nag yéem na ma lool liy bisiri nag du ma dal waaye daal ci jaali batu moom daf ma ciy dal xam naa yéen jàngatu jaali batu yi ngeen noppee ngeen defal ma ci ay dog xëy na dina dina dina dina dina dañ wala mu wàññi dafay mel ni tomb bi ñu dénkoon ngir ñu waxtaane ko mooy jaar-jaari Serigne Touba muy jaar-jaar yi koo xam ne waxtaane ko fii ba déwén du nu doyal waxtaane ko benn minute du tax nu doyal xajul ci waxtu xajul ci bis xajul ci at soo xam ne bi nga feeñee ba biñ la noppee gis ci saa yi foo ngi def yaa ngi nii kon kooku jaar jaaram waxtaane ko lu yomb lool lay doon waaye lool lay doon moom Cheikh Ahmad Al Khadim bi nekk ci weer bi nga xam ne kenn ci jàmbaare bi ci la feeñoon jamono muy ak Cheikh Mouhamadul Fadil ak Cheikh Abdoulahi borom dër bi ñaari jàmbaare bi yooyu feeñoon ci weer bi di mu dem ba màggalu Porokhane ñëwaat ci weeru rajab xam ne ku xam màggalu Porokhane xam ne ba ko Cheikh Mouhamadou Bachir di delloo si waat di ko dekkal di ko def ci rajab la ko daan def kal su rajab muy ñaar fukki ak juróom ñaar ci weeru rajab dem ba yàgg rajab bi ñëw ci kal bi ñëw ci ci nawet ak foofu ne xam fu mu nekk ci biir Saalum daan na tax baykat yu bari daawul ci mën a ñëw yoon daanul am sëñ Basiru ne léegi lañ ko doxal ba bu nawet wàccee ba ñuy jaay seeni gerte seeni i lépp jaay ba noppi ñu soog jàpp bis nga xam ne bis bu ne ngeen jàpp seen bis bi tey weer xam ne balaa lislaam bi ñëw sax dañu ci xeex dañ ci xuloo dañ ci defal dalu ñaaw ba weeru jàll soo ko tàmbaliwaat nga xam ne rajo bu fàtte dañ koo benn di borom tànnal ci suñu tubaab kenn ci jàmbaar yi ñu seen ci wala ñaar ci jàmbaar yi kenn maay sa baay maay sa nijaay ni booy juróom am xaadima ma nga dëkk ca mun tam danga ko wax ne maay sa baay maay sa nijaay waaye Cheikh Amadou Fadil yi nga xam ne moom moo lay taayal gis bi yéen ci ngeen lay rek danga ñu cëpp jërëjëf borom Pambal yoo xam naa ne waa Pambal war nañ laa bégal bégal ba nga bég ndax moom ñu koy nuyu bu baax baax di ko jaalee magam ndax bi ma ñëwee yëg naa ne magam dafa wàññi maa ngi koy soog gis gisante mu ngi baax a baax ñaan ñaanal saa ko ñaar ci loxo ak beneen boo xam ne seen naalu yaa mu doon wax ne bokkoon na ci moom it daawul fekkoon nañ ko fi kon ci bis bi mooy jàngoon alxuraan ak xasaayid ak fàttali jaar jaar ci tubaab ba taxoon moom daan ci sonn ci yére yi loolu coono boobu yàlla suñu borom def muy ay xéewal fekk ko fee mu tëdd ci baat xasida ñu yónnee ñu jëndi càngaay ñu dem di ko jënd ñu koy jënd xaw a yéex su Tuubaa ne mbubb yi mu sol ak ni mu faatoo dañ ko sangee noonu denc ko noonu dañ ko denc ba noppi ci ñaareel mu laaj xanaa li ma def jaaxal na ne mu ne moom ne bi mu dund daal bokk ko doon xasida mi daal jamono jiñ toog di jëndi càngaay mi xëccu ne nañ ko ko jox mu teral ko moo tax ma ne nañ ko denc te bëgg xaar càngaay kon moom mi ngi am di ko def waaye weer wii Cheikh Abdoul Fadil gane woon jamono di Kazu Rajab si fan la yonent bi dañuy mooy laylatul isra bi abdihi laylan min masjidil haraami ila. day ba jeex. li ma ko suñu borom mos a jox rek. naan yeneen Seydina Jibril yóbbul ko ko fa mu nekk waaye bis boobu nag waroon koo def karu boobu di julli mu yónnee ne nañ ko ko indi mu war ci raf-raf ànd ak alburaax ba fa alburaax war a yem raf-raf continuer moom ba fa war a yem mu dem gisal borom bi subhanahu wa taala mu xamal ko ni mu koy nuyoo mu xamal ko ni koy faye loolu lépp su borom jël ko delloowaat na ko ni julli di ci bu dee fu taxawal nañ waxtu julli di ko def mel na ni taxaw nañ nii suñu borom suñu borom fay nañu waaye gars yi baax yi ci guddi googu génn dajeeg Seydina Moussa alayhi salaam mu ne ko sa borom de comme Moussa noo woolu ba nga ñëw jox na la yóbbal ana lu mu la jox mu ne ko jox na muy julli mu ne ko ñaata la ko jox mu ne ko juróom fu lañ koy def ci bis bi Seydina Moussa ne ko loolu bari na sax xeetu ko àttan demal ne ko na ko wàññi yéen bi sallallahu alayhi wa sallam dëppaat léegi suñu borom ñu ko ndax doo ko wàññi suñu borom tey gisu ko mu def ngeen ko mu génnaat dajeewaat ak Seydina Moussa mu ne ko wàññi nga ko mu ne ko waaye ñaata la wàññi mu ne ko waaye suñu borom wàññiwaat fukk mu des fanweer mu génnaat dajewaat ak Seydina Moussa ba léegi Seydina Moussa ñu taxaw di ko delluwaat na ko wàññi. wàññiwaat sa xeetu ko àddal mu ne ko ruus bi ma dellu mu di ko wàññi juróom fukk mu di ko wàññi ba mu des juróom kon léegi juróom yi dañuy sàggane ma sama tuloon juróom déggoon suñu borom ak bëgg gi sëñ Tuubaa tax moom juróom fukki junne daan bëri ci bés bu ne ñu ko daan jaxase ci ay naafila fajar bi balaa mu koy julli ñaata lay lay julli balaa muy julli tisbaar balaa muy julli takkusaan bu jullee timis ba noppi doo julli incha allah bu doon moom rek lañ jëloon doon ko waxtaane dañuy xam ne Sëñ Tuubaa moom mën nañ ko fee teg rek waaye waxtaane njabootam ak muritam yi nga xam ne defar na leen man moom Sëñ Tuubaa moom mi ngi feeñ ci atum 1270 ci gàddaay bi yonent bi gàddaayee ba am junni at ak ñaar téeméer ak juróom-ñaar fukk ci la gën a jamono jàppoon moo tax di ko woykat ba di marsiyaat ngir mën a firndeel gën a jamono mu ne xar bu dee dal xadima man xattarana shariatul muxtaara ama sharaa ñu wane ne ama sharaa ci la suñu tubaab gën a jamono ci 1852 ñu ne gàddaay yonent bi sallallahu alayhi wa sallam 1270 xam nañ leen ci ragal yàlla ndax askan bi ñu bokk suñu borom bu naree def ngëneel da koy waajal boo xoolee yonent bi sallallahu alayhi wa amul menn maam moo xam ne dañuy jaar ci moom kenn xas ko mbaa ñu yeb ko mbaa ñu xeeb ko noonu la ko waajalee ci seen tubaab yi nag mooy woy juróom bi soxna Mariama bu suuf jaar ndax yi ak di sëñ Mamour Anta Sali kenn mbàcc xam ne boo xoolee ci soxna jaar doon na ko doy sëkk moom suñ tubaab mu ndamoon bu kër ndayam ndax jamono yi ñuy jàpp jàpp jàpp nañ jàpp fu ne waaye teggi nañ leen alxuraan bokk na ci ñi ko fi ñëkk a mokkal ci réew mi wax naa ne soxna si ci jigéen ñi njëkk a mokkal alxuraan ci Sénégal ci la bokk bokkoon na ci jigéen ñi daan naa fi laa kaame ñaari raakaat ci guddi bu nekk nga xam ne loolu na ko téeméeri at ak juróom-ñett ndax moom dund na cent trente-huit ans téeméeri at ak fanweeri at ak juróom-ñett ci Sëriñ Moustapha yëpp nag guddi bu laa kaame bu commencé Bakara ba Mariama muy benn rakkaam mu rukoon sujjóot bu siggee taxawaat Mariama ba daal di xam ne daanaka bu koy def day fekk jot mu def ñaari rakkay fajar julli suba daal di toog di wér damuy forbët ko fi jubaat di waxtaan ak moom di ko laaj ana Cheikh Anta ana waa Sénégal ana Mame ko fabul nga delluwaat di ko te boo demee neen si ànd na ñoom mu daal jël yére bi fan yooyu bi fa nekkoon la jël ay yére bi ko ko fóotal ndax boobu du lay set du coupe ongle du paaka du dara lu mën a leewee ay weewam du ko ko jege ku ko mën a fóotal du ko ko mën a wat surtout maa ñi ko daan wat xam nañ ni saa yi bu xëyee wat bu mu ne karawam sa xam waaye melo woowu ko suñ ko tamit yow fekkee moo da war yaramam ba mënu koo te lii boo mënut a jàkkaarloo moom gis ko bi mu dellu see nag fekk fóotal na ko ay yéreem defal ko ci la ko ne day dox maam Cheikh maam maam maam Cheikh Anta borom gaawaan mu ñëw fa maam Cheikh fa Sëñ Tuubaa bi mu ñëwee li mu ko njëkk a mooy Cheikh lal bi toog mu toog mu ne ko Rasulullaahi sallallaahu alayhi wa sallam sama sang léegi la fi jógee ci lal bi la toogoon. daane ko boo demee nag ma ko joxal sama day am na njaay bés bu faatoo buñ koy denc nañ ko yëkkati lal bi yëkkati ko ba ñëpp gis ko ndax garab bi ma am ci man muy maam Anta Njaay bi sëñ maam Cheikh Anta borom gaawan dellu see Sénégal yàggul dara ci la tubaab bi daal di waaj ngir bàyyi sëñ tubaab ndax boobu xam nañ ne lépp lu ñuy def nit muy metti bëgguma ci dugg ndax waxtu wi guddi na te ñun ñuy dem waaye lépp lu ñuy def nit mu faatu def nañ ko ci tubaab bu ñu defee ba sonn xam ne bu dee rey rek mënuñu koo rey posone nañ ko jàll ñu gas kàmb dugal ko ca jàll ñu taal fuur dugal ko ca jàll ñu takk ko ci garab jël fukki nit ak ñaar jox leen fetal fetal bu nekk ñu sax fukki bal ak ñaar ne leen tiire leen buñ nee buñ leen joxee compte ne 5 4 3 2 1 tiire ñëpp commencé loo tiire buñ tourné ñoom fukk ak ñaar yëpp ne daal la ci suuf ñoom ñëpp faatu nag suñu baa ngi taxaw fi ko taxaw yii yëpp bokk na ci ko defoon ak yeneen yoo xam ne waxtu wi ñu may ñu dugg ci waaye bi ñu jaaree moom fii ba xam ne mënees koo rey ci lañ ne nag nañ ko delloo ci mooy convocation boobu ñu ndax mun nga bëggoon a xeex yow euh, armée bi ñëw ndax amul yow tamit yeneen yoo xam ne dinañ la ci noonu ci lañ fexe ni ko nag léegi li ci des mooy dañ lay delloo xam ngeen ne bi mu jugee bi mu jugee euh, Gabon. bi mu jógee Ndakaaru war a dem Gabon ci diggante boobu ñu liggéey bi ci diggante boobu la xewal moo tax ngeen koy gis ñu koy def la 5 septembre. lu ne rek ci Cambérène la Sëñ Tuubaa jullee woon waaye ci Océan Atlantique bi ci la Sëñ Tuubaa jullee woon buñ koy roy nag duñ mën a def lu dul comme le 5 septembre la woon le 21 septembre la woon te 21 septembre boobu la fi xëy ñu ne kon boobu génnagul génnu Ndakaaru gi moo tax bi ko defee foofu ci jàmmalaay waaye la saa dégg ngeen suñu saako ni mu ko nettalee nii saa bu jàppee bay dem bay waaj pare rek ak param ñëw rek laal bu ko laalee rek suñu waa tàmbaliwaat jàppam bu demee a pare rek param bi ñëwaat yoon suñu saako ne bu doon wàllu yooyu waaye nee na bi mu ba noppi tubaab bi dafa ñëw jàkkaarloo moom ne ko Ahmadu yow de li ngay incarné sa morom doo tooñ sa mu ne ko waaw mu ko boo julee fii ci gaal gi di nga tooñ sa ni ko toog boo julliwul di nga tooñ sa borom ñi ngi xool nag ba xam tey sa borom ngay tooñ wala sa borom ngay tooñ su jumaa di ko am jom jomam jooju ko ñulub ba mu def li mu woon dana fa des fa des waaye jomam mayu ko muy faaj waxtu yàlla wi ngir toog di bànneeku bakkanam te moonte ku doon tukki la amoon na sa sañ bàyyi ba am foofu ko taxawee ndax lislaam may na ko waaye a jom ja su jumaa jël deram boobu nee na bi muy wëgg a la mel ni gaal gi la ñuy wàccee mel ni gaal gi mel ni luy suuf ba tolloog ndox mi sëñ Tuubaa daal di bi bato bi di dem der gi ko topp bi mu sëggee ko indil suufu Tuubaa xam nga sunu gars yi moom ku nekk na koy yëgal na koy yëgee waaye daal la am mooy sëñ Tuubaa teg na deram julli na wax na ne sax su dégg da ko doon junj moom ci li bindal boppam ci Zaw Chako. suñ ko mosaan nag dèjà Sakkoor bi mu bind bu sëñ Tuubaa bi ci la ko roy sëñ Tuubaa da ko bind ci arab moom bind ko ci wolof nee na sujjóot yi da doon junj da ko doon ishaara ndax mënu ko wër ci ndox mi ndax ku ne xam na ndox ak ni mu mel doon ishaara di ko junj bi mu jullee nag ba sëlmal ba noppi nag ci la ñëw ndax boobu gaal gi dem gaal gaal gi taxaw fi mu taxaw o dem bi mu jullee ba noppi ci la ñëw taxaw jox leen loxo pour ñu may ko loxo moom mu yéegaat ci gaal gi ànd ak ñoom mu ko capitaine bi ne ko ko am donc bu la neexoon nga teggee nii dem sa yoon ndax li la may ba nga ci ndox mi di julli mënoon na la fee jëlee yóbbu Tuubaa te kon duñ la duñ la topp duñ la jëli waaye xam nañ ne sa jom moo la may nga dellu si waat ak sa mbool yow wax di ko def ñaan yàlla xëttal ci gën di bëgg suñu Tuubaa saa bu ñu xëyee sunu lépp di bëgg Sëñ Tuubaa lépp di liggéey Sëñ Tuubaa te xam ne liggéeyal googu moom mooy tax mu jëriñu ndax wax na ne yow may ci alxuraan yëpp dañ yow maa ko ci gën a ñor ba yow ma nag ba kullu unaasin bi imaamihim nga xam ne ci leen si àtte mbooloo mu nekk fekk leen jiite nee na su boobaa bu ñuy àtte murid dañ ana Ahmadou Mbacké nee su ma jugee taxaw damay woo murid ma defal la ma waroon na def nee na bu boobaa danaa fàttali sallallahu alayhi wa sallam bu béy jéem ko wéyal sama waayu ne ko samaan nee na su ma ko waxee wax dëgg da koy dina mu jàmm ñi dina bañ laajte ana Moodu Mbàkke mi ñu woo nee na nag bu boobaa ku ko féetewul ne ne jàpp leen te bu ngeen ëppoon da dem ba ma soog a bu ngeen yéesoon dama ñëw ba dem ngeen ñëw bu leen jéemee jàppoon da ngeen dajeeg man te ngeen ko nangoo ndox ba ñu dajeeg sëñ Bamba te nangoo ko wasalaamaaleykum wa rahmatulah. wax ne jërëjëf Serigne. masin ba jox na suubu leen jëm gaar